bismillaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alxaaji Seck dongam sëñ Abdou Rahmane Mbàkke sëñ Mbàkke Madina fa seeneen nett li wenn way Cheikh Abdoul Mbàkke sëriñ Mortala Jaañ def ko ci canta ngërëm laa di doorem ni yoo ci jàmbaar ja jaaxal ku dul rabbana ci canta ngërëm ja jaaxal ku def mu gën ci mindeef tofal bamba xaadim mafal seexuna su duniyaa defoon kër gu ñàkkul solo dalay féetewoo def la kom baatina te ab nopp déggul ku yor aw meloom ci penkook ci sowu te lii yàgg na te ab nopp déggul ku yor aw melom ci penkook ci sowu te lii yàgg na ku yor gët yu xool keneen koo amaana bu gisul sa mbir yeete naa sëriñ bamba moo yor meloo Moustapha nga faw ab meloom mbàkke moom jiitu na sëriñ bamba moo fab meloo Moustapha nga yor aw meloom mbàkke moom jiitu na danga nga duy ba ngee jël ci ngee ji ngëneel yabur jox Moustapha yegg naa da duy ba ngee ci géej yi yaboor yàlla jox Moustapha yàgg na di anwaar di asraar sëriñ bee matal mbiram yëpp barkeel jëfam atte na karaamaake xar baax ya seex bamba nga feeñaale duniya sa biir na ba feeñ pa njaareem yamook bal sasin la ne waaw kay ganam yegsi na ba feeñ pa njaareem yamook bal la ne waaw kay ganam yegsi naa sëriñ bee ko mandal ci baharul ulum musut yëpp alim gisoon ngeen xanaa sëriñ bee ko tànnal turam wii mu yor mu doy sëkk xar baax biram biiru na mu doyloo boroomam te def ci yiteem ci biir ak bitti lu dul rabbana mu jox ay mbiram yëpp xaadimu rasul ba far nekk xaadim kamal seexu naa dëggal yàlla wéetal ko jox koy mbiram di jaamu boroomam kasaa seexu naa jëfam ji ci lislaam juréy màgg la mbégum gaa yu baax yëpp moom jàll naa yonen baaki saabaam danañ bég ci moom ne mboo yor moo tontu seen jëf jasaa rabbu naa yeneen baaki saabaam danañ bég ci moom ndemoo tontu seen jëf jasa rabbuna muridun sadiixun li seyxil xadim mi yeesal ngirum mustafaam rabbana ba muy door la jël ngir mu dox daa di wéy ba jaayum njëreelam fa yoo baatina cërub saahiram ak cërub baatinam mu booleeke koomam jëfal seexu na xadimun xaddimim ni xaadimu rasul sëriñ abdoulaat mbàkke moom wàcc na xaddimun xaddimim ni xaadimu rasul sëriñ abdoulaat mbàkke moom wàcc na li saytaane bon bon te dib yàqkat falay romb say jëf azal naagu na baab jant fenke ku dib sàcc toog te naa feq yéefër bilay jekki na ku daw wuy ji sa woote moom raw na tey ku diingat lu tuut tuut mbiram yàqu na ni mboole am li ngay digle ngir yàlla la li ngay aaye mooy lor ku bañ gaañu naa sëriñ baa ko mandal ci bahrul uloom musut jépp alim gisoon ngeen xanaa bu daa wax da cay waar ñi jeel fal ni xam ni bu jàngul du ak neen xanaa ba mboole am jullit ñaa ngi jàppi waxam mu leen cay defar ay waxam yeete naa niteel nit ba muy nit ba xam moo di kan di sellal jëfam ñëpp ko jox seexu naa niteel nit ba muy nit ba xam moo di kan di sellal jëfam ñëpp ko jox rabbana ña daalaaja kay gëstu fan ba ya aw mu teg leen ci yoon wa moom wàcc naa ba ab xar nu jeexee beneen bay taxaw ca teew mu jaddit mbirum rabbana tabuur yàlla moo def ni Abdul Ahad mu jaddit ci soodaan pexem sotti na bu am ceebu tooyee ba gàncax taxaw mu toftal ca ay waame moom rabbana bu am ceebu tooyee ba gàncax taxaw mu toftal ca ay waame moom rabbana ni yërmande jaatax ndoxum taw di rot te yërmande mu ñëw seexu naa fexeel kon ba yërmande yóbbaale la bu lay romb ngay réccu dug na tegal aw ñamam ndox satal say loxo te dul neexal wee sooti xarit iftu naa tegal aw ñamam ndox satal say loxo dëdul neexa weesu xarit iftu na lu jar dee si wax nag dëdul nekkati gannaaw ay waxam ay waxam yegg naa damay dellu ñaan yàlla ñaan muntaxa mu doon seen ngëneel ak mbégum rabbana damay dellu ñaan yàlla ñaan muntaxa mu doon seen ngëneel ak mbégum rabbana li gën cib jullit saahiran baatinan defal noona yaa xam dunun seexu na bu nuy dund yaanu moom te bu nu deemu raw fabal mbir yi ci moom ba dem ajjana bu nuy dund yaanu moom te bu nu deemu raw fabal mbir yi ci moom ba dem ajjana damay xat mu yam fii ni sallim ala nabil mustawa kon jasa rabbuna allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi wa sallama lilahi ma wax lilahi rasulilahi xayril anam